moo tax eh, wax naa ko sànq législative yi di waaj a ñëw nii nañ leen jox majorité xam nga lu tax werante xuuxaan tekki ngemb Senghor président Léopold Sédar Senghor bi mu fi nekkee daf daan am majorité wala amu ko premier quinquennat du amoon na ko ak yi fa jaar yëpp président Ablaye Wade premier sept ans yi amoon wala amuko deuxième amon na ko wala amuko deuxième quinquennat amon amoon ko wala amuko am nako? président Macky premier amon na ko wala amuko sept ans yi ko wala amuko deuxième bi la problème am parce que lam digon nit ñi defuko ko waaw ñi ñu ngi doora ñew soxla nañ majorité lutax ñu jox ko ñele bëggu leen koo xañ nañ leen ko jox majorité écrasante nañ leen ko jox xam nga lu tax ñu seet mën nañ wala mënuñ cinquant yàggut su fekkee jox nañ leen ko liñ di aswan askan wi ñu def ko ñu dàbbali sa loxo kañ boo ko dugalee ci paanu lem génn capp mu neex da ko fay delloowaat waaye boo ko dugalee ci pax ñu ne ko càppit dagg cet la dofoo bay dugal loxo bi ñuy dagg loxo bi dëgg la wala du dëgg waaw kañ soxla nañ majorité nañ leen ko jox suñ leen ko joxee nag xippi bët yi xool la tax ñu jox leen ko danañ ko def wala duñ ko def suñ ko defee ah ñu dàbbalil leen suñ ko deful ñu sanctionné leen niñ ko defee président Macky Sall ndax réew mi kenn moomu ko ñun ñëpp a ko bokk ku yaakaar ne daa moom réew mii ndax nga sa bopp de kenn moomu ko loo siiw siiw siiw am na ko la gënoon a siiw

nguur luy jeex la luy jeex kenn du ko jëndeeg lu dul jeex te réew mi du jeex fek buuf tawalut comme du jeex fek buuf tawalut te li fi nekk day jeex nañ leen jox majorité man politiguma damay wax te yàlla tax waaw la ko jox Senghor président Senghor jox ko président Abdou Diouf jox ko président Abdoulaye Wade jox ko président Macky Sall waaw lutax ñu bëgg koo xañ ñi waaw nañ essayé jox leen majorité cinq ans yàggut buñ doxalee fa lillahi alhamdu buñ doxalut opposition bi yëpp nañ dajee jëlee leen fi mu jeex ah danañ ko dégg nag li may wax nii nag danañ ko dégg incha allahu daañu am majorité écrasante sax la ñuy am incha allahu que bu ko buñ ko amoon réew mi du dox duñ liggéey réew mi te buñ ko amee nag ñu xippi seen suñ bët di leen xool gis nga yi fi amoon dootu fi am ku ko fu bëgg a installé it doo ko mën gis nga réew mi dafa am ci yeneeni loxo yum nekk yoo xam ne loxo yooyu kenn gisu ko loxo yooyu ñoo figuré indi loxo yi ci kaw ñuy gis ku yaakaar ne sa loxo si nag moo téye réew mi nax nga sa bopp loxo yee ca suuf ñoo ko téye te loxo ya ca suuf kenn gisu leen kenn xamu leen te luñ bëgg yàlla def siiwuñu xamuñu leen boo leen tuddee kenn du leen xam te luñ bëgg yàlla def loxo yooyu nag ku leen wattandiku ñu sànq la te ñu ngi bari ci réew mi moo tax ñii nañ def très attention eh, eh, gouvernement actuel bi nañ def très attention xam acte yi ñuy poser ak pas yi ñuy teg bu leen kenn jaxasee réew mi bu leen kenn jaxaseek sëriñ si bu leen kenn jaxaseeg population bi opposition bi nag maa ngi leen di ñaanal yàlla yal na leen yàlla may ñu daje nekk benn parce que xam nga lii nekk nii métti na quarante et quelques c'est trop ci réew mu toll ni Sénégal te billaay am na ñoo xam ne sans voix sax duñ ko am billahi wallahi tallahi sans voix sax duñ ko am ñoo ko tey dañuy sabote rek waaye sabote sa bopp jaru ko toroxal sa bopp jaru ko lii Pastef def nag ànd naa ci xam nga lu nit da ngay natt sa incontournable soo ko ci politique am nga ndam soo ko ci diine ji am nga ndam il faut être incontournable xam nga li ma wax waaw fokk nga même politicien sax boo incontournable dañ lay yàpp parce que amo base politique amo dara dañ lay romb gauche ak droite waaye boo amee base politique bu dëgër nekk incontournable ñëpp di la seet si bëgg nga ànd ak ñoom loolu diine ji ku nekk ci diine ji war nga xeex bi am ko ku nekk ci tarixa war nga xeex ba am ko ku nekk ci politique war nga xeex bi am ko fexe ba nekk incontournable Sëriñ Tuuba tarixam bi daf ko doon nee ci baayam tey il est incontournable wala il n'est pas incontournable il est incontournable te dooneewu ko ci baayam Seydul Xaaji Malik lii moo am ca Tiwaawan dooneewu ko ci baayam baayam xaadir la woon tey il est incontournable maam Limaamu Laay Sëriñ Njaasaan maam Abdoulaye Niass maam Amari Ndaak Sekk Alaaji Ahmad Dem Sowkon Cerno Momat Saidu ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ma joxe benn exemple bu gàtt rek Cerno Saama sa kañ la fi yàggul bu ma nee yàggul mooy <laughs> ci ci suñ génération bi la bokk tey il est incontournable au Fouta wala il n'est pas incontournable politicien bu dugg fuuta di nga dem seeti ko Cerno Adama Gaye Cerno Jamli Cerno ci am voilà lo dem benek nek ci incontournable ñepp lay soxla et je suis incontournable par la modestie nak. par la modestie je suis incontournable par la par la modestie dama koy wax na fa fa amma bi ni'mati rabbika fa hadis lo rek a tax ma di ko te wallahi je suis incontournable xam Serigne Cheikh neena bu la ñepp xamee nga réeree sa bop neena ko gën mu ne waaye bu la ñépp réeree nga xam sa bopp mu ne boobu la yàlla bëgg mooy farata waaw ah? foo fi anfusikum afala tubsiruna jeex na waaw ah, kon nag wilaan yow it fexeel ba nekk incontournable ci média bi te téye incontournable de parce que ñi lay seetaan bari nañ de macha allah sa abonné yi gis naa ko waaw ah? téye incontournable fi ku dugg ci YouTube bi rek gis la gis wilan TV ken munu ci dara eh, wa fa ga juddo sa salum dang ko fa don sa mam da dafa am ku ci nekkon ci media sa papa dafa nekkon ci media ya am sa ite, xamne ne jamono day dox Serigne Cheikh Tidiane ci Al Maktoum neena niru sa baay niru sa jamono ko gën nirusa bo niru sa baay niru sa jamono nak recc nga benen bi ci dess fofu la koy jexale Serigne Cheikh Tidiane si nee na bokk ci coow li xam li xew a ko gën te man damaa xam li xew nee na mën a waaxu xam yoon a ko gën man damaa xam yoon nee na bari pexe nag saf yàllaa ko gën xool leen nag saf naa ko wala safuma ko <laughs> ah, damay takki ni rek nag beneen bi ci des waa amma bi ni'mati rabbika fa hadis loolu yëpp damay jàngal jeunesse bi ak ndaw ñi bu kenn xeeb sa bopp Alaaji du daf daan wax ne bu kenn tuutal boppam bu kenn tuutal boppam bu kenn tuutal boppam ñun ñëpp ñun ñëpp ku góor góorlu rek dinga am